sama diggante sama waa commune mais sama diggante ak ñoo xam ne dama bokk ak ñoom ñu bokk ak man village bu tudd Agnam Thioday ñu dëkk mu nekk euh, village au moins pas moins de dix mille habitants yàlla dogal am nañu forage te forage bi président de la Macky sal en 2013 la yabal le ministre d'État Mbaye Ndiaye mu ñëw inauguré ko bi ñu fi ñëwee conseil des de décentralisé kon nga xam ne ni ci bilan de Macky la bokk ça veut dire que dafa indi différence de 2012 jusqu'à 2019 yàlla dogal aussi forage baa ngi fi nii am nañu benn puits boo xam ne ne defaroon nañ ko te forage bi ñu defar ko def ci boole ci équipement groupe électrogène ak lépp président de bi encore moo joxe ci ndigalam nañ ko jëlee gasoil moo gën li population bi di cotiser ñu yóbbu ko Senelec ñëw directement électrifier ko ñëw encore ñu defal loolu jamono juñ toll nii nag comme dëkk bi dafay gën di yaatu euh, président yabaloon na encore par canal le ministre de l'hydraulique Mansour fay mu ñëw encore def addition d'eau bi yëpp sept kilomètres et quelques loolu yëpp samp nañu tuyaux ci biir dëkk bi lépp Macky Sall la ko def ci coobare suñ borom aussi ñu toll diggante ba nga xam ne comme dëkk day gën lay di yaatu dëkk bi gën di yaatu ñu sanc ay sanc yu bees dëkk bi commencé ëpp doole forage bi ñu waxtaan ak le sous-préfet bi nga xam ne moom moo jiitee arrondissement bi ci wàllu état ñu jël technicien moo xam ne ne gas ay forage mooy métier am ñu jël koo xam ne moo représenter hydraulique au niveau régional nga xam ne techniquement ñoo koy valider ñu fas yéene def fi loo xam ne beneen puits deuxième puits boo xam ne xaw ma 14 pouces lañ koy waxee techniquement moom la moom lañ fi fas yenee def pour dëkk bi gën a am ndox comme château bi amul problème te dëkk bi am na tuuti problème rëkk-rëkk ndox mais ci suñu xalaat bu gàtt loolu mooy jafe-jafe boobu ñu xool naka lañ koy saafaree te loolu lépp day neex président dañ ko def ci sur tur suñ diggante ak population yi mais président de la République loo ko mënta defal ci àdduna tant que yaa ngi gestu njaboot bi di jàppale askan bi rek ndax moom moo njaboote ñëpp mooy chef de l'État C'est un forage de, de, de, 200 mètres cubes, plus maintenant une hauteur de, de 15 mètres jusqu'à 20 mètres. Je pense bien que si nous fait, Inch'Allah, si nous raccordons, nous avons refoulé ce forage, je pense que nous avons sauvé Allah. non du yàgg du yàgg du yàgg c'est un forage boo xam ne au moins dans dans au moins avant fin fin fin fin avril lépp war na yem bu bu bu bu soobee yàlla. bokk fii dara yoon juddoo fii yaroo fii màggee fii. dëkk fii sama jabar nekk fii samay soxla nekk fii sama njaboot nekk fii di fi jàngee ci école publique bi ah ma dëkk fii donc fu ma mënta am ci àdduna rek neex na ma lool mais fii ma ko daxal fii moo ma ko daxal ma wax dëgg yàlla moo waral nag lu jëm ci mbir yi noonu su ngeen gisee Farba est fréquemment au Fouta parce que dafa nekk pas que je suis dama am ñaari kër bii nekk Ndakaaru bi nekk Fouta waroo gëj say kër nag wax dëgg yàlla te fii bokk nag te wax dëgg yàlla ku am dara yóbbu ko sa dëkk dañ laa war a ñee mais kenn waru na si jéppi nag wax dëgg yàlla de en loolu dafa bokk ci loo xam ne ne sama politique dafa am politiciens yu bëri dañuy politique wax dëgg yàlla seen cosaan fii la mais dafa des ñu dëkk fii ñoo xam ne ne bu mbirum politique tàmbalee rek nga di leen gis bu jeexee dootoo leen gis tant que politique amul man bokkuñu doxalin man damay politique à côté di chef de l'État ndax Macky Sall gëm mais fi ma bokk nii gëm naa ko lool moom laa boole. li ma gëm Macky Sall ak li ma gëm gox gi moom laa boole mu nekk benn ngëm ngam moo waral su ma demee Dakar dox ci samay mbiru bopp gis sama waa kër dox ci mbiru Macky Sall dinaa dellu ci fii ci li ma makkisal Sall jox ak tuuti ndénkaane wala boole ma ci boppam lu ma ci coof rek indi ko fii laay def ndax fii laa bokk.